Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Farba sangor mang lay ziar baakha baax man la Dembali from Banjul City Ah uh, dembu dama seetaan sa sa interview Fani dama damay seetaan sa interview temps en temps ma dégg la dal say wax beuri say na Ousmane Sonko trop Ousmane Sonko trop te ma dégg Ousmane Sonko wax bu tudd la wala mu tuddu kula xam wala mu tuddu sa njabot. wala lu la engagé ngay passé say costume di wër site internet yi sonko guddi sonko bëccëg di wax wax joo xam ne teggi wut loolu laa xamul man mooy lan ban ban marché lañ la jox ba nga dar yow bu ñu la joxoon marché marché sonko kera bañ la koy joxee nga ko waroon a delloo xam ne marché sonko delloo ko ak lu ñu ci mëntu fay rek moo woon nga ko delloo mais jël marché saaga Sonko saaga jigul la Farba Senghor dama laaj ña doon njëkk saaga Sonko fuñ mujj mujj lan moo tax bu ñu la laajee si réew mi boo ubbee si gémmiñ di wax mënoo wax si mbënd mi inondation bi ndox dund ku seer gi di yokk rek mel ni otaraay hmm? jafe-jafe Sénégal yi hôpital yi ñuy jaay injustice bi tëjiki tijji troisième mandat bi yow li taxaw sa kanam pour nga wax dafa taxaw kanam pour nga ko dafa bëri mais nga jéggi fi lépp fi lépp naan dossier guddi dossier bëccëg dossier boo xamante Bassirou Guèye sax daw na su sekk daw na Samba Sall dee na yow nga yaa ciy wax ba kañ et puis di wax wax yoo xamante ni xale sax ndax mineur sax rus na ko wax mais Farba Senghor arrête waaw ah, boo déggee nu ma topp di nag fa nga jëm soriwul chiffre nag si yi bu continuer moom da du yomb de Farba Senghor voilà. maa ngi lay jaare bu baax dama maa ngi lay jaare bu baax dama bëgg rek nga am teggin li nga xam ne du doomu aadama waaw ci démocratie la ñu nekk ba ma nekkee ci mbirum eh, di wax ci Sénégal yow boobu daawoo wax kenn daawul dégg daawoo wax kenn daawul dégg kenn daawul dégg sa kenn daawul dégg sonk sonko kon nag du yow tey yaa wax lu may wax lu ma dul wax te nag parce que sequñu ko ndax su leen neexee ngeen jël télévision yi lu leen neex ngeen yàq ko ñi ngi ànd ak yéen rawatina ci président de la république loolu leen démocratie may liberté may leen ko may liberté may leen ko liberté may na ko sa moroom kon nag kon nag da ngeen di bàyyi yéen li nga xam ne ngeen di def ñeneen ñi ah, ngeen bàyyi ñu def leen ko yéen parce que loolu moom mooy démocratie dañu teg ko ci li nga xam ne mooy yoon mooy yoon waaw mais gannaaw si tey nag man sequma ak ma ak yow loolu waaw man débat laa mën a ak yow nga wax nga wax argument ma indi argument waaye nag na mujj bu baax di la ñaanal jàmm. Farba Farba Senghor Farba Senghor yaa ngi déclaré guerre guerre. waaye si caaxaan yi ngay def waxoon naa la ko yéen démocratie ni ngeen koy jëfee ak démocratie nu mu tëddee dafa du benn Ousmane Sonko bàyyiñ wax si moom ndax ñun ñooy jóg dem si télévision yi site internet yi panel whatsapp yi def débat idée ñun débat idée ñoo ko indi Sénégal ñun Sénégal ñun politique bi ngeen xam bu ñu leen xamoon ñun waa PDS ak libéral yi libéral yi sànnante xeer pëcc xool lambi gorok jóg daan ñun ñoo ñëw débat idée tudd gaz tudd zircon tudd ndaw tudd tudd économique tudd France dégage tudd France CFA dégage askan yi loolu doon nelaw si askan yi loolu doon nelaw si ñoom ñun ñu yeeku kon ñun débat idée kenn duñu ko wax duñu ko wax boo defoon débat idée du ma ñëw sa PV naa la Farba Senghor nii Farba mënoon noona naa ñàkk de mënoon naa la ko bañ a wax de mënoon naa def sama liggéey seetaan la mais ma lay alerte mosuma lay xam sii mais temps yi xamu ban mars mais temps yi xamu ban mars la la Macky Sall jox mais xam nga ne baaxul may marché may marché wër di saaga Sonko Sonko guddi Sonko bëccëg Sonko képp ko moom su dossier Sonko ñaari dossier lañ ko xamal wala benn dossier mooy soixante-quatorze milliards wala dix mille milliards soixante-quatorze milliards soixante-quatorze milliards gis ngeen ko ñëwul fii télévision yi di wax dafa porte plainte plainte procureur porte plainte au niveau de OFNAC jébbal leen ko dëgg et puis OFNAC OFNAC xam nga parce que moomuñu ko mais loolu wax leen ci wax leen ci xaalis réew mi Ousmane Sonko épinglé Ousmane dafa ñëw ne salaamaaleykum bindi bindi téere bindi téere voilà samp daara bënn teer débat mu ñëw suul leen yéen ñi fi yàgg yëpp yéen anciens yi Macky Sall ñëw jox leen marché saaga Sonko ngeen koy saaga yaakaar ne day nooy bi ko saaga nit ñi bëgg a fay ngeen naan démocratie bu mu ñaar man manoo maa menacé maa menacé saaga yaa naa waxi saaga dooma ko jox yaa ma mag fe mag fe mais leçon de moralu saaga dooma ko jox voilà ndax dama mais Sonko xam nga ne li ñu ko nekkoon di wax ku la ko wax sax nga ne daf la saaga démocratie du ay saaga yu xuloo démocratie dangay ngay xuloo démocratie da ngay ñëw ne Sonko épinglé na Mamour Diallo lii laa ci lii laa ci xam ak lii Sonko épinglé na Macky Sall lii laa ci xam Sonko épinglé ci xam ak lii loolu moo engagé quatorze euh, dix-sept millions habitants yi mais dossier boo xam ne yeneen ne bu ne privé la bu leen ci wax bu leen ci wax xam ne ñu ngi leen di gagné élection locale ñëw ñu ñëw ñu duma leen élection locale ñëw législative ñu duma leen ngeen la nga am si ay sagar la ah mais doo leen bàyyi yi ngay def ñun ñu jot audio directement Mamour Diallo di katt Adji Sarr waxu leen ci dossier boo ko bi ngeen ci waroon wax da ngeen waroon Adji Sarr Mamour wala Macky Sall Adji Sarr ngeen di ngeen di kattante di ñëw fii di fonto niñ mais mais baax na maa ngi lay déglu maa ngi lay déglu ñun gënoon leen ñoo sa di gënoon leen ñoo réew mi 18 mois yi leen fi dese ni ngeen ko bëggee ñu nekkee ko bu ngeen bëggee ñu nekk si jàmm bu ngeen bëggee ñu pëcc kii war naa nekk fii di Farba Senghor mi place heure bi kaso la waroon nekk kaso moom ak ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom Madické Niang ñoom Omar Sarr ñoom Samuel Sarr Samuel Sarr ñoom ay Mamadou Lamine Massaly ay Mamadou Diagne Fada ñi kaso ba leen waroon ay moom ay Pape Diop ñoom ñëpp gis nga moo tax ñu daw dem si Macky sax ñu daw dem si Macky Sall ndax lan alalu réew mi duñ luubal Macky Sall xam ne ñii dañoo luubal alalu réew mi mais dafa am loo xam ne nii dafa ruslu dafa ñaaw wallahi alazim waa ji c'est-à-dire da ngay dem ba yow benn instant yow vraiment doo xam sax doo xam sax lan ngay lan nga war a def quoi mais booy boobu demoon jigéen sor tuuru ko yebalu woon ko booy Abdoulaye Sow xawma mais gars yi descente leen def këram bi mu defee descente këram est ce que gis ngeen booy bi est que gis ngeen booy bi génnaat wax leen est ce gis ngeen booy bi génnaat sénégalais xamul kuy layam layam yi wallahi alazim dama ne la si ay Abdoulaye Wade bi ñu ko jàppee taala si la xoolal doo mës a dégg muy wax mais léegi dangay gis ay xale yu jigéen sax ñu taxaw di jouer ay di jouer ay film wala ay théâtre xam nga xam nga di di wax n'importe quoi def lu leen neex wax lu leen neex gars yi tasaare ko ci internet bi après ñu gën naa toog di jégalu gën naa toog di jégalu fekk moom la ñuy wax ñoom wax nañ ko quoi ci histoire Sénégal أدونا ممبرول درسا ولا خد كرمنا بني آدم يلا يلا مو فالوريز دوم آدم ترالكم مي كو خمنا ني تاي ايرو بور افريك ينن افريكان ييب بيجوك دي خيخ غير موم والله العظيم لي نيك دي خاو سينيغال لي ني ياك بريزيدانس مان سونكو بودون بنين دك لا كين واخاتوكو كين واخاتوكو كين واخاتوكو liberté d'expression ok mais pas estoront ni ñu bon ni xaraam ni ni koy défé. mel le patriote amul Sénégal quoi quoi scusa scusa scusa ñu ngi fiancé gars yi si devil aka ah, am luma metti sama xol aka ah, am luma ma naqari aka ah, am luma metti nekk ci panel yi di wax rek nekk wax rek nekk ci réseaux sociaux yi di wax rek personnes yi dee joxe seen bakken ngir aar Sénégal parce que aar Sénégal mooy aar waa ji mooy aar waa ji parce que waa ji moo war a génnee Sénégal ci jafe-jafe ana booy tëdd ci kaso ba bàyyi seeni njaboot bàyyi ay jabar bàyyi ay doom ba ci soxna naaj ñun moom wax rek xëy suba ba ngoon bëggoon wax xëy suba ba ngoon bëggoon wax man la ma waxoon laay waxaat neen tas njëriñ fane li amatu ko voilà yàlla du fay mukk ay wax di bàyyi jëf fa man yaamal misqaala zarra amal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara wa amilu salihaati kaanat lahum jannatum firdawsi nuzula jëf rek mais nekk fii wax wax wax wax wax wax ban njëriñ la am yow yow ñoo xam ne matuñu Sénégal sax dara wallahi alazim mais vingt quatre heures yi ëllëg bu demee ba yor Sénégal sax est-ce que dina am valeur est-ce que crédibilité bi nga xam ne un président de la république war na koo am est war na koo am est-ce que président Ousmane Sonko bu jëlee réewum Sénégal Sénégal loolu dina ko am ay xaal ñu ngi dégg ñu ngi gis booy lii di nekk di xaw Sénégal boy catastrophe la wallahi alazim kenn musul gis lii kenn musul imaginer lii di imaginer lii di nekk ay seeni YouTube leen ibbi léegi bi léegi maki Sall di leen recevoir vergogne gars yi c'est honteux li nekk di xew xew c'est honteux Ay, jamu ji yàlla la sa perdre Oui. ay xale yu ndaw di dégg internet lépp lo ci wax day des Lo bind day des Ben instant da ngay dem sa benn instant naan lii est-ce que jiite réew jar ko est-ce que xettali aw xeet xettali aw xeet jar na Oui. سي ديزولي سي ديزولي اسكو تجرنكو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم السلام عليكم